Boisson Jet Set EDK ak AME ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. dégg lii émission nandite yi. laay oustaz Mbacke day sol dara rek ma ne ko lii naaj na rek xoola mu summi ko daal di ma koy indi la lendemain. kan bilaay walaay. yow de kon ren loo ma nangu. xam nga xam daan nay nay nay loolu moom Maodo xam naa ñi la daan dégg te naan Maodo lu mu wax kii la tey dañ naan Maodo day tooñ na ah man lool ñi man man moom xaw ma damaa nayam. waaw mais liñ may wax da ngaa nay bëriwul. ah man de maa la koy wax. ah soose nee soose mooy réaliser émission bi nee na Mbacke noy nayul ah kon soose yow da ngaa dugg foo xajul ah, réalisateur nee na Mbacke noyul kon nag fais mooy number one ndekki li ndekki li man moom laay déglu Sud FM yeah Nico di la jox good vibes ndekki lu neex tàng jër Sud FM mooy number doomu Sénégal man la bay di bi dew bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf bien bonjour chez vous bienvenue chez nous c'est euh, li émission naan yi xam nga bu balaa ñu laata ñoo dugg ci studio bi bu nekkee ci suuf mooy dàq sax euh, suba la tabaski euh, parce que li ci suuf bu ñu leen ko doon nettali da ngeen naan non dëgg tellement c'est c'est dafay neex donc Mbacke ak Maodo seen i waxtaan ci suuf moo dàq la ci kaw kon loolee xam naa da ñàkkul danaa ko denc def ko ay off yoo xam ne fin fin d'année rek ma génneel leen ko bu ko defee ñoom duñu duñu duñ ci sib dara ah mais loolu yéen ak man la n'est-ce ñu ngi leen di ziar di leen bëggee ak di amati mbégte saa euh, su ne bu ñu xëyee di àndandoo ak yéen na ma koy waxee saa su ne toujours un plaisir pour moi de vous servir à travers votre émission préférée Ndéki émission nandite yi vous qui êtes à Dakar mais également à l'intérieur du Sénégal puisqu'on le sait tous Dakar n'est pas le Sénégal kon yéen ñi nekk biir Sénégal yépp jaajëfal nañ leen di leen sant ak di leen gërëm di amati mbégte maak équipe digitale ak équipe technique bi ma àndal waane itam maak sponsor yi ma àndal bokk na ci EDK euh, e groupe EDK à travers KPay à travers euh, euh, Jollof Chicken ah à travers également station service EDK yi nga xam ne moom la sénégal yi taamu kon yooyu yépp ñu ngi sant group EDK bu baax a baax di sant di gërëm également jamono yéen a ngay gis euh, célébrité yi ngi ciy dugg euh, di ci publicité yu am solo euh, ku mel ni ku Kouthia Abou Bilal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne été bi yëpp lii ngeen fas yéene gis fépp mooy jet set boisson bi xew ci jamono ñu leen di sant di leen gërëm ndax fa nu eggsee foofee la baaxee waa jet set boisson waane itam AME di agence bi ñuy lëkkale ak wàllu économie énergie tàngaay bee ngi ñëw également dañuy soxla consommer énergie lu bëri moo tax AME fekk si ndekki li ne il faut que ma sensibiliser sénégalais ci njëriñal euh, maanaam économiser énergie bu ko defee ñu yaxanal suñuy poste également grâce à AME ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon ndekki li tàmbaleeti émission nandite yi ñu ngi en direct sunu ay plateforme digitale YouTube Facebook daa ngeen fa fekk seen soppe oustaz Maodo fay mii sañ seeti tey macha allah <laughs> oustaz bismillah salaamaaleykum bi boo ko sumee maa ko moom waaw waaw waaw boobu la kii na xam boo waaye <laughs> sumeeku ma ko nag. nañ <laughs> xaar nañ. pourtant pourtant oustaz j'ai fait la précision boo ko sumee waaw wax nga dëgg de waaw loolu loolu de wolof la. <laughs> waaw ah, wolof la ah. waaw déedéet loolu leer na di leer na. man maa déggul woon. waaw <laughs> ah, quand même. waaye leer na naa maa ngi lay ziyaara bu baax di nuyu saa Bawol. jërëjëf. Eh, di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy filmer. Uh-huh. Eh, techniciens yi ak bokk yi nga xam ne jamono bi ñu ñuy déglu. macha allah di nuyu ñëpp rek. mais da maa war a jox sama wàccuwaay comme noonu gars yi di nuyoo. di nuyu waa di nuyu nuyu waa Xelcom Fish waaw Xelcom Fish man xam xam naa tax ma leen di nuyu. ah ñu ngi leen di ziar ah, waaw. Oh. ñoom ana ñoom moom Xelcom Fish. waaw ana ñu ñoom. ah baax rek borom borom jën yu baax. waaw moo tax ma ne la nga fi rek. bàyyi yëg yaay yaay Nicolas moom léeg-léeg ba sax war naa ko xoolal ah. ak ñoo baax jën. bàyyi yëg nañ ne namm nañ leen. <laughs> ñëpp ñëpp namm nañ leen mais xam nga Mor Gueye ko yore xam nga sëñ Mor moom. sëñ Mor waaw. boo bëggee dégg dëgg. ah baax na ah Sénégal bëgg nañ ci yow de te xam nga ni ko yii jën yu baax. billaahi te xam nga ni ko laa nag yaayam day bu bu jëriñëwee xam nga ni ko laa nu ko yaayam defal. da koy woo toggal ko ceeb. Hmm, ndeysaan su ko waree booy bi jaar fa. billaay ceeb non man oustaz <laughs> damaa yaakaaroon ne jën jën bu baax amatul ci réew mi. Hmm? ndekete woo. xel comme fish ba xel comme fish ak seel xel yi daal ah. ay Mor de ah, ah Mor day seen morom Mor. kama hmm. Mor taalibe ba tey ba tey nangu boo ma tëkkaleeg moom ma bàyyee ko. waaw kama Mor Mor Mor daal woon moom barkaal. Eh, macha allah loolu kay ñu ngi koy nuyu bu waa xel comme ko nit ku baax la. jërëjëfati mais euh, oustaz nag euh, franchement sañse bi moom yaa ngi ñu koy def dafa sañse dafa waaw waaw damay kii rek oustaz ni mu dellu see dafa dellu see doole waaw dafa xam nga nag yéen da ngeen maa xas. Hmm? ba oustaz boo demee dafa dajale nag boo bëggoog léegi. <laughs> déglu la la ma amoon ko si nee na dañ koo xas maam la wax ne daanoo sañse. waaw ah kay non da dangay daan nga sañse mais dañ laa far nga gën a yokk sañse yi. ah yow nag noo daan def. man xam nga. <laughs> non kii <laughs> waaw naka jekk. damay yàkkamtee ñëw lu ma njëkk a oustaz nag Mbacke mooy sañse en question. non man lu ma njëkk a romb rek. Eh, ne xaaral ma sol bi après. mooy sañse en personne. moo tax ma ne ko euh, te Mbacke ba kat xoolal oustaz. waaw oh. Mbacke noonu la yeewee yeewenee nag yeewen la ñuy wax noonu. yeewen waaw laay oustaz Mbacke day sol dara rek ma ne ko lii nice na rek xoolal mu summi ko daal di ma koy indil la lendemain. kan bilaay walaay. yow de kon ren loo ñaan <laughs> mu nangu. bi xam daal nay nay nay <laughs> loolu moom Maodo xam naa ñi la daan dégg te naan Maodo lu mu wax kii la tey dañ naan Maodo day tooñ na ah man loolu ñi man man moom xaw ma damaa nayam. waaw déedéet mais liñ may wax da ngaa nay bëriwul. ah man de maa la koy wax. ah soose neen soose mooy réaliser émission bi nee na Mbacke noy noyul ah kon soose yow da ngaa dugg foo ko ah, jóg réalisateur nee na Mbacke noyul kon nag waaw léeg-léeg wax waaw dëgg nag léeg-léeg nag yu sew sewaat yi moom <laughs> yi <laughs> sew si waan yii daal nga xam ne daal waxat lu ko wàññi dara ah, yooyu yooyu nees joxee lu lay wàññi dara <laughs> eh, moom kay bañ waxee ne lu ñuy dépensé waaw yàlla dana xulil afu aw des déggal loolu <laughs> waaye bëgg a um, joxe ba loru eh. baax na waaye ah. baaxul ah, doxul Maodo fi mu ne sa mbub mi su mi ko jox Nicolas mi eh, du yàlla ne dangay joxe loo bëgg bilaay joxe kon joxe mbub bi mbub bi bëgg naa ko de na ko su de ba même bu mu rafet waa ji bëgg koo nax ñëw ba naan ko su naan ko damaa bëgg nag sa mburu sa dof bi na ko bu ma ko sumee lu may sol. quand même mu ne ko mu mm. ne ko nga sol lan yow. <laughs> ñu def <laughs> ko di passante. waaw ko ma summi ko mu ne ko nga sol lan. waaw <laughs> waaw mu ne ko mu ne ko nga sol lii mu ne ko ma sol lan ma ko sumee man baax na kon kon kon kon bàyyi ba bàyyi la. ba ba boo ko sentiree ak boo ko décidé rek. ah voilà. baal ba ma décidé rek. bi la yoo laay. waaw du wàññi du wàññi dara. waaw mag moom kenn du ko soor ko soor ko di ko yàqati yàqati. waaw ah. man loolu mën naa ko def mbàkke. coow du jib mais yow du ma la sorko sorko. loolu mooy ay teggin nag. voilà non yow même sax bu ko bu la bëggoon a sorko sorko sorko sorko <laughs> ah, ma lu may sol. waaw ma ko nga ne xanaa su ma ko summee. ah <laughs> la provocation. <laughs> waaw ma jox la ko. ma dese la ce tir là da nga koy encaisser rek. ci lay nekk ci lay ba yére bi ràpp. <laughs> merci beaucoup Serigne Mbacké Sylla ak Oustaz Maodo Faye utile et agréable comme d'habitude noonu lañ koy doxalee à travers votre émission préférée Ndéki li émission nandite yi à exactement onze heures et dix-sept minutes kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nekk ci plateforme digitale yi di ñu suivre actuellement fu ngeen mënte ne di ñu suivre sénégalais de l'extérieur rawatina yéen ngi euh, allah di wane seen cofeel ci émission bi ci chat bi en direct jamono yi kilifa réew mi daanu lire seeni message ndax émission bi mooy émission bu baax bi ci waxtu bu baax bi euh, te yitteel euh, mbokk yu baax yi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Serigne Mbacké Sy le dirait une fois n'est pas coutume la une de Sud Quotidien de ce mardi 9 mai 2023 jugement en appel de l'affaire Ousmane Sonko Mame euh, boole ci ne de deux mois en première instance la chambre correctionnelle relève la peine à six mois avec sursis la hypothéqués. Ainsi titre Sud Quotidien à sa une du jour Ousmane Sonko euh, euh, oustaz Maodo Faye dafa mel ni li ko dal diggante démb ak tey seddul ndax ba ñuy wax wax yi euh, kii bi nu mu tuddati jugement bi ca cour d'appel ak la ko ci fekk pareeguñu sax après beneen ñëw fekkaat ko si muy copain am la ñuy wax wala ancien copain am wala ex copain am wala keusam woon wala ay doomu ndey lañ daan woonte ah, sama doomu ndey noonu daan woowante I mais àdduna euh, ngi noonu donc euh, leneen ñëw dal ci kii xam naa loolu tax aussi euh, instant bi nii doy na war loo hmm? ah, jàngatee ba su démb bi waa xam nga xam nga politique moom bu fekkente ne bopp Sénégal la hmm. xam nga politique moom daa bari fexon ci réew yu bari ak ñëpp nañ koy defee hmm. waaye suñu bos bii moom li mën a xew tey bula bu subaa mën naa weex waaw ndax boo seetloo ni mbir mi demee tey jii ba léegi mën naa demee neneen waaw bu fekkente ne ci problème mu Barth la ak mm, Sonko gisaguma lu tar loolu lu ñu fi mën a wax ay ay sopp ay passante ay kii la. Hmm. ay kàddoog yu demee noonu waaye déclaration boo xam ne bi danga nga ne fàng kenn wax loo xam ni baat bu dérangé la gisaguma ko. maanaam ah baat boo xam ne bi ku ko dégg dar sa gémmiñ wala ñu sullante ay mbir wala ñu kii. Hmm. kenn ku nekk rek am nga position boo taxawee. Ah, Barth nee na la mu xam. xanaa nee na waxagul nee na waxagul nag ndax moom dafa jàng politique waaye la mu xam yëpp bu ko waxoon fii fii toj. keneen nit la mu xam bu ko waxee moo tax di hmm. waaw wolof nee na dëkk boo gis jàmm xëy fa yendu fa nar faa fanaan hmm. kenn ku ne la nga xam da nga ko waxul déet waay waaw maa la ko wax hmm. dëkk boo gis jàmm xëy fa yendu fa nar faa fanaan waaw kenn ku ne la nga xam da nga ko waxul ah bu ñëpp waxee li nga xam Ndakaaru tas <laughs> bu koy ni ñëpp doppi rek <laughs> ndax koo xamal rek xamal na la koo xamal xamal na la. voilà moo tax mbir yi nañuy nañuy suturaalante rek. Hmm. waaw ndax Nicolas bi toog tey daat ne. Hmm. man tey su ma xam lii ma xam tey su ma ko waxee àddina tukki. Hmm. boo demee am na ko xamal Nicolas. dëgg la ah, waaw c'est ça donc yàlla moom mayul kenn 100 pour cent. moo tax loolu moom dañ koy teg nee rek. lef daf ko aw lef nee. waaw ci bisu démb bi nag dafa am jàngat yu baree bari yoo xam ni am na ci. ci Ousmane Sonko. xam nga mbiru droit moom. xam naa li ñu l'œuvre humaine n'est pas parfaite xaw ma nu ñu koy waxee. l'œuvre humaine aucune pas voilà n'est parfaite waaw maanaam doomu aadama def dara mu mu baax 100 pour cent. Mhm. xam naa ne moom ñii liggéey droit ci gën a sonn ñoom. Mhm. ndax interprétation yi. Mhm. mooy mooy mooy doy waar. maa ngi gis benn constitutionnaliste nee na. quel que soit alpha ak lu ñu mën a wax. Ousmane Sonko mën naa bokk. am hmm. keneen ku ne déedéet. Hmm. quel que soit alpha mënta bokk. Hmm. léegi kon beneen interprétation duggaat na. ñii naan déedéet 6 mois la wax ñii ne déedéet au delà de 6 mois. ñii naan bu tegee plus ñii naan bu tegee moins. waaye xam nga ñuy ay troisième mandat rek. maanaam interprétation yi kii day wax jëmale fii kii wax jëmale fa finalement doo xam sax bu ciy bu baax. xam nga nag man lu ma jaaxal ci àtteb démb bi. gannaaw mois yi di indi coow. dana bokk ak du bokk xam nga entre 3 et 6 4 ngi fi 5 est ce que est ce que dina indi coow. non non non je veux dire juge bi doon àtte démb. waaw lu tax mu jëli fi 4 5 yóbbu ko ba 6. Hmm. foofu la coow li nekk. Hmm. loolu loolu mbir la. Hmm. te comme dañu doon wax naan 6 mois yi bu ñu la ko defee doo bokk. bu njëkk ba 3 mois la woon. mu jëli fi 4. mois jëli fi cinq mois. waaw yóbbu ko ba 6 mu ne ko fa réel. te te jeexagul. te jeexagul. aji ñëwagul. te aji ñëwagul xam nga loolu. bu fekk euh, maanaam état ci boppam moo neex naqaree xeexal. dana war ndax dañoo yore xam nga doole boo ko amee du ko jëfandikoo. Hmm. ñaar mooy mën a tax nga teey. Hmm. boo amee doole am hmm. doole ba pare teey lu jafe la. am doole teey. waaw ak jafe. ndax doole ji ñaare da lay nga mel na oto bu amul frein. ragal yàlla rek mooy tax nga xaw a teey. mais mais mais oustaz euh, est-ce que lii boroom xam-xam yu euh, bëri wax. Euh, laata maa jox Mbàkke est-ce que da nga koy dëggal wala borom xam-xam yu bëri analyste yu bëri yu ma déglu démb ci média yi nee nañ Ousmane Sonko dafa juum ci lu bëri ci wàllu communication ak yooyu stratégie ak yu ni mel euh, maanaam quelque part il s'est mis tout le monde à dos maanaam ñëpp la la amal problème donc finalement est-ce que loolu stratégie bu baax la woon ci moom. ça dépend ci ñi ko wax. parce que catégorie bi ko wax tamit da nga dul xam foo leen di qualifier. Hmm. ñi koy wax doo xam ba xam ban coloration la ñu am. ok parce que je crois pas que ñi nekk ci wartu Ousmane Sonko. Hmm. di ko xoolal communication wax nañ lu mel noonu. parce que ku wax ku ne aussi des fois jëmale sa boor. waaw voilà bien moo tax. moo xam ci Ousmane Sonko wala ci keneen. merci beaucoup gis nga parfois dañuy toog fii ñu ne communication gouvernement bi baaxul. Hmm. mais ñi nekk pare yore communication Macky boo leen ko waxee contraire bi lan lay wax. Hmm. moo tax ñaare wax bu génnee da xool groupe bi ko wax ñoom seen coloration fu mu féete ba pare. ok moo tax yow jàppoo euh, na ci dara wala ëpp. ëpp na ci dara wala non. non xam nga tax gëw ko. xam nga en communication politique dafa am ñaari sàcc yu ci am ci biir communication politique. Hmm. parfois da ngay ba pare di raay. Hmm. politique politique noonu la soit da am fitu wax waxi xam nga da dégg sax wolof naan politique ab dof rek ko man hmm. maanaam koo xam ne que day jékki-jékki ne teel ñu ne nga jékki-jékki nga dóoraat parce que Sénégal moom boo fi politique te sa sa làmmiñ saful doo dem léegi nag sa safag làmmiñ googu am na ñu ko man a interpréter na baax na wala baaxut mhm. mais ki koy wax moom xëy na doole jooju la am pour xeexe ko lu lu ab sew-sew bu naqaree lijjanti la mhm. eh, bopp yi nag ñoo bokkul mhm. mais man li ma jàpp mooy eh, am na communication yu gënoon a garaaw yu Ousmane Sonko te kenn waxu ko waaw kon baax na parce que parce que kilifa bu taxawee ne nangam ak nangam nangam bu amul mën ñoo fekk kilifa gi nga xam ne moo nga ca pale ba ñu délogé ko est-ce que loolu communication baax la d'accord Euh, jaar loolu jaaroon na fi 11h23 minutes Oustaz Maodo Faye jërëjëf Serigne si la gis nga événement yi xew démb euh, mel ni lu tegloo euh, finalement ñu ngay jëm ci dina bokkam du bokk dina bokkam du bokk boobu ñu daan waxal président Macky dafa mel ni léegi wëlbatiku na dem ci Ousmane Sonko. mais d'abord noo jàngatee journée démb bi. waaw loolu de mooy li ci doy waar jàngat mu doy waar nag man nag journée démb bi moom am naa ci ay mbetteel. Hmm. am naa mbetteel ci àtte bi ni mu ni mu mujjee. am naa mbetteel mu rëy nag itam ci euh, sortie Barthélemy Dias dem naa ba mu jàgg sax may xoolaat ba xam sama connexion bi moo baaxut wala man damay seetaan kuy toppandoo saa njóogu moo solu ne Barthélemy Dias di toppandoo waaye Barthélemy Dias mi ma xamoon dëggantaan njaay mm-hmm. eh, jàpp ma woon ne moo toog di di wax noonu loolu nag sama sama gisin la mm-hmm. ba sax dama cee xawoon am sax naqar lool ndax man ab diggante bu ñaar di ànd mm-hmm. ànd ànd bu rafet dafa maa gënal tàqali ko ipi ànd dafa bari ay secret yu ne ci biir ànd man boog li may àndeek nit nga xam ne tey jii bu ma xasee ba ànd ak Maodo mii lu baree baree baree bare bari ci samay mbiir dama koy waxtaan ak moom di ko wax sa biir ak sa bitti diggante boobu boo séenee muy ñagas ba jëm ci wàllu weerante da ngay tiit ndax danga naan kenn ku nekk la nga xamal sa morom mooy li Maodo wax léegi ku ne am nga loo xamal sa moroom boo ko waxee dëkk bi tas hmm. te kenn ku ne da jox sa morom confiance boo xam ne confiance bu rëy la te man ma am ci lu ma wóor am yaqin ne eh, Ousmane Sonko dafa joxoon confiance Guy Marius kii eh, maanaam Guy Marius juumuma hmm. ak Barthélémy Dias ñoom ñaar ñooñu hmm. Hmm. Eh, ndax man fekke naa mu def ci ñoom ay sede yoo xamante ni seede yi nit ñu nit ñu wóor nit ñu dëggu nit ñu loyal nit ñoo xamante nii jàpp na ne ànd boobu du jeex mukk xalifa Sall mii noonu léegi loolu ma ànd politique moom noonu lay jeexe saa su nekk wala déet bettut kenn mais Nicolas li ma ci li ci li ci doy waar mooy xam nga politique politicien moom loolu yàgg naa mooy li ma di wax ni maanaam ñi ànd tey bu subaa ñu tàqalikoo ñi nàngam ñi nàngam hmm. euh, erreur erreur yi ma jàpp ne moo am mooy bi ñu jàppee nit ñoo xam ne jàpp ne dañuy xeex système bi hmm. ba noppi àndaata niti système bi hmm. euh, saa su nekk système bi mën naa soxla tëraliinu système woo xamante ne kenn ku nekk da ngay tëral say système ba dem ca léegi bu boobaa loolu mën naa jur yu mel ne yi nga xam ne moo doon moo doon moo doon feeñ démb Maodo mii rek démb toog nañ fii mu wax ne jàpp na jàppu ma ne Barthélemy Dias dana bokk ci dialogue boo xamante ne nii dañ cay waxtaane lu ñu sacrifié Ousmane Sonko wala dara démb Barthélemy ci maanaam ci ay waxam mooy wane ne dialogue bi sax moom initiative am la loo xamante ne nii moom moo ko bëggoon te Ousmane Sonko àndoon na ci wax ci wax yu baree bari yoo xamante ne nii loolu loolu sañ-sañam la am na liberté ci wax ko ci wàllu politique waaye bu doon damay koy tànnal bis bu mu koy waxee sax du doon bisub démb ndax ndaxte waxi Barthélemy ji bi mu waxee ba noppi tax na verdict bi jógee ca àtte ba ñu bari sax commenté tuñ ko maanaam day mel ne day boole ñaari ñaari ñaari information yu am yoo xam ne bii day ñëw di ñu fàttalewoo bee. Hmm. c'est-à-dire day mel ne Mame yi Niang moo doon def sorti Euh, pour gën a euh, euh, maanaam enfoncé Ousmane Sonko gën koo dugal gën koo nangam Barthélemy rôle boobu la gën a suyee maanaam rôle ku Macky Sall yebal hmm. ngir mu maanaam ngir mu gën a yàq procès wu Ousmane Sonko ak yoonam hmm. moom ngay gën a gis ci rôle koo xamante ne ni opposant la ne yow am ay jafe-jafe bis boobu nga tànn ca ngoon nga yow itam ngir ñëw gën koo gën koo dugalaat gën koo dugalaat loolu dafa metti lool hmm. beneen bi ci topp da laaj ko sëñ Maodo léegi am ci xalaat mooy Euh, euh, maanaam ci discours Ousmane Sonko. Hmm. man wax dëgg yàlla damaa jàpp ne bari na yum dugg yoo xam ne manoon na cee bañ a dugg. Hmm. ñaar nag kenn du leen yedd mooy kuñ ne daa ne ci kaso ba wala ku feebar wala ku ne ciy jafe-jafe. Hmm. ndax loolu moom daanaka gën a metti la nit ki la. waaye li mu wax nii ci Mame yi Niang ci 29 milliards yi même bu fekkee Mame yi sax moo ko defoon. nga nga xam ne dañ naan am na journaliste yu ko waxoon bind nañ ko ci livre Abbas Fall wax na ko assemblée di wax na ko assemblée kilifa gu ñëwaat toog di wax hmm. da ngay yëkkatiku ba tiim loolu ba da nga ciy tayee wax hmm. c'est-à-dire dafa am yoo xamante ne ni doo ko ubbil ay front hmm. mais bu fekkee Ousmane Sonko léeg mu wax ci Youssou Ndour satellite nangam nangam bu subaa nga wax ci euh, maanaam procureur ya bu subaa nga wax ci magistrat yi bu subaa nga wax ci nangam ñ ngay wax wax waxaan yooyu day mujj ci yooyu buñ la ci buñ la ci kolee fenn état day mel ne ku sempeeku ba set fële taxaw ne man sama yoon nekku ci te fekk moom yoonam a ngi ci waaye nag xam nga bëy woo bañ koy bëgg reen rendi far paaka ba réer ñu ne nañ ko yeewi bàyyee ko bëy wi dem hmm. bëy wa di fecc ba far sulli paaka bi hmm. cest à léegi nit ki la bëgg a rey amut lum la reyee mu di ko wër hmm. far ngay ngay wax benn affaire ba def ci lu ñu tudde njuumte moo xam njuumte ak du njuumte si si da koy wax mais sama xalaat laay wax bañ jàpp ne lii njuumte la ñu profitoo ci dafa mel ne yow yaa ubbi bunt boo xamante ni nit ki mën na cee profitoo pour yàqal la donte nag yàq geeg bañ a yàqal moom ay laaj nga ci am mooy sonk pour pourquoi ñi xalaat ne Ousmane Sonko wër ta bokk lu tax ñu bañ mu bokk bokk gi lan moo leen ci déranger ndax dañoo jàpp ne bu bokkee day gañ gañe kon askan wi lañ jàpp ne moo ànd ak moom ndax léegi da koy éliminer kon ndax bëgg-bëggu askan woowu ñu yaakaar du jebbi damay éliminer kii ndax li askan wi bëgg du am wala bu bu man jàpp naa ne bu leeroon ne bu bokkee rek dem dem noonu noonu noonu noonu noonu noonu dañoo jàpp ne du am dara hmm. du déranger kenn bañu bañ mu bokk hmm. bu fekkee nag dañoo bañ mu bokk ndax ay yëf am na lu ñu ragal mu xew hmm. loolu mu xew nag Ousmane Sonko du ko jënd mais aw askan ak koy fal askan woowu nag ñoo moom réew mi ñoo war a am sañ-sañu ñu maanaam ñu jàppandi la leen bañ tànn ku leen di ngi ci bu baax bi ak bu baax bi ndekki li émission nandite yi nous sommes en YouTube Facebook Sud FM Sen Radio la première radio d'information sélection du Sénégal puisque ñu ngi wax waxi Barthélemy Dias démb ba muy annoncé conférence de presse am ca 19h euh, bokk na ci média yi mu sélectionné na mu koy faral di defee moom mi ba euh, monsieur le maire de Dakar. Sud FM mi nga xam ne bokk na ci média yi mu sélectionné pour waxee fi kon ñu ngi koy jaajëfal di ngeen gis euh, image bi mu utiliser ci ay plateforme mhm. plateforme digitale am boole ci Sud FM parmi les cinq médias yi mu tànnoon pour communiquer kon euh, monsieur le maire de Dakar moo def loolee euh, tonton El Hadj Tandian Diouf hmm, papa maa ngi lay ziar nee na rappeler à Maodo que hier un autre motif qui n'a pas été prise en compte lors du premier jugement il s'agit de l'injure maanaam démb ci jugement bi dañ ci boole injure te bokkul woon ci premier euh, maanaam ci euh, motif yi nga xam ne euh, dugaloon nañ ko ci premier jugement bi le Mbacké dafa am lu mu wax ma Oustaz mooy ci Barthélémy Diaz maire de Dakar ak doxalinam peut-être ci bës bi ak waxtu bi mën nañ ci discuter mm. par rapport ak événement bi nga xam ne amoon na mais est-ce que aussi monsieur le maire wax na wax na fii lu lu graaw moom itam dafa doon indi précision parce que moom itam buñ ko buñ ko bëggee dugal fenn fi Barthélemy quand c'est un politicien mu bokk ci formation damay wax ne moom hmm. ah, noonu la ko jàppee dafa jàpp ne dañ ko doon bëgg dugal ci lu lëndëm mu bëgg leeral loolu la wax loolu la xamal gaañ kon politicien la moom itam tactiquement techniquement dafa am yoo xam ne da ko maîtriser du bàyyi aussi ñu dugal ko ci yenn yi. mais justement loolu laa moom daanaka sax wax naa ko bi may tàmbali dama ne joo xam ne ji. Mhm. ci wax ji waxuma nag ci choisir comme heure beeg bis beeg. Mhm. la ca ajoo fekk verdict yooyu. Mhm. mais li mu li li Barthélémy Dias wax. man gisuma ci wax joo xam ne ji garaaw lu ñu waxtaane wala mu am loo xam ne li xëy na felesu na ko wax ni ci politique nangam da dem sax ba ne bëgg jàmm ñu nekk ci jàmm ku bëgg leneen ñu dëkk ci waaye waxul li waral jàmp jeeg lay indilee mais nag wax na ci kaw wax joo xam ne ji xëy na te ku xamoon Barthélemy Diaz démb ak bërki démb ay waxam du ko du ko du ko kii du buy wax day wax directement dem yoonam ah. wax na ci yu bari waaw wax na ci yu mbaal ma rek li mu préciser njëkk mooy li ñenn ñi doon wax ne dajeem ak président Macky Sall dafa leen bett ak yooyu mu leeral ne mhm. daje boobee mhm. lu ñu programmé woon la te ñépp ci opposition bi maanaam kàngam yi yëgoon nañ boobee daje donc du du lu bees ci ci ci mais mais teg na sax lu gën a garaaw mu wax démb gisuma ci benn problème mooy wax na sax ne mm. amul benn diir politique bu ci nekk mm. waaw maanaam lu waroon a nekk la lu ñu waxtaane def nañ ko mm. d'accord na ci dialogue bi et puis am na sax sañ sañu d'accord ci dialogue bi kenn xam nga ne que liberté waaw waaw loolu du problème quoi man gisuma vraiment loo xam ne lii daal xëy ku ko dégg da ngay dar sa gémmiñ ne nanga ma keneen am na lu mu leeral. Mhm. ci lu mu waxoon ak Ousmane Sonko mu xaw a mel ne dem bay bëgg a dëll mu kii mu joyantiwaat affaire bi tegaat ko ci raay bi. Mhm. ñee de l'autre côté tamit bu ñu amee lu ñu cee tontu bu ñëwee mën nañu caa tontu bu ko defee carte gi di a ko gisee mais gisuma ci te gis nga mooy li may faral di wax rek gis nga politique bu Sénégal. Mhm. ñun ñi ne ci rajo bi ñooy ñooy ngal ngal ngal ngal mais da ci am loo xam ne ñoom ci seen bopp. la ñuy nar ak la ñuy wax ak fa ñuy gisanteeg rendez-vous yi ñuy joxante lu naqaree lijjanti lay doon gis nga Nicolas nañu wolof dafa wax benn wax wax bu gàtt mu ne nañu yónni yàgg hmm. nañu yónni yàgg waaw lu tax mooy mooy mooy patient mooy longtemps waaw waaw nañ xaar bàyyi le temps et le meilleur juge mhm. nañ bàyyi affaire bi ak jamono mu atte ñu mhm. xam nga dafa am lu ñuy dëgmal ñi ngi ci 2023 mhm. dans neuf mois danañ dem ci at mu ñuy tuddee mille 2024 feeg 2024 lu ne xaj na fi am na fi lu ñuy tuddee parrainage bu fekkente ne dindiwuñ ko maanaam segg gi ñuy segg ñi war a man a am baar ñi war a bokk ak ci élection noonu am na commission boo xam ne ñoom lañu ñu dénk élection yi mooy waa Sénat yi ajee ci aju mm. bu ñu paree am na ñaar fukki fan ak benn yoo xam ne yii ay mbër dañuy dugg ci biir Sénégal waru ko def campagne mm. ci biir campagne boobule kenn ku nekk ak say militant kenn ku nekk ak say mbër mm. ma jox la benn exemple tey su ne Ousmane Sonko par exemple supposons damay supposer rek ñu ne du bokk ñu ne du bokk ñu ne léegi kan moo bokk ñu ne dem Demba ak Samba ak Modou Hmm. Ousmane Sonko comme nee nañ bokkul léegi. Hmm. waaye nag libre na Sénégalais la am na droit bokk ci campagne jàppale nit mu ànd ak dem ba moomu. Hmm. nekk ci convent di ko campagne la. bu keregee kooka mën naa am lu bari. loolu nañ ko bàyyi xel. ma maanaam nit yi Ousmane Sonko. ñu ko bëgg te xam ne Ousmane Sonko tey. xeex nañ ko wala écarté nañ ko. ñu ne ok. Ousmane Sonko tamit laxasiwaat. léegi dem ci convoi benn leader politique boo xam ne bii. Hmm. image bu nu gis-gis Sonko taxaw ci wetam. Hmm. dañuy jàpp ne kon léegi Sonko demul waaye kii lay jàppale. su kerogee coalition boobu man naa am doole suppose. supposition supposition. Hmm, donc yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel. Euh, te xeex bi jeexagul moo tax damaa bëgg a wax ne. nañu yónni yàgg mooy. combat bi lu bari des na ci. ci sunu kanam. coalition yaa ngi ñëw xeex yaa ngi ñëw waxtaan yaa ngi ñëw ci biir. galgalante yaa ngi ñëw. tey nag bu leen fàtte benn affaire. waa waa waa waa Pastef. mais duñu ay dof. Hmm. xam nañ ni am na am na aw yet woo xam ne dóor nañ ko ci seen bopp. Hmm. ndax ñoom ci seen bopp fi ñu toll nii tooguñu di wut stratégie bu ñuy def. Hmm. yàlla rek a xam pour xool li ñu dëgmal ñoom. ñoom dañu daan réagir vite fait. waaw léegi moo tax man la. est léegi léegi dañuy def. dañuy xaar voilà très bien est-ce que xaar boobu nuy xaar. mën nañu lu ñu question lu bëri. voilà est-ce que amuñu lu ñuy lu ñuy togg lu ñoragul loo xam ne lii bis buñ ko yàkkee am na fu ñu ko jëmale foo xam ne fii bu keroog mën naa changer données ndax ay nit lañ comme ñun. <laughs> mais évidemment am na spécialiste yu commencé di wax ne euh, kii nar a remplacer Sonko kan lay doon ci Pastef pour euh, élection yi. plan B plan B ñoom ñu ngi commencé di. réfléchir moo tax nañu yoonu yàgg rek. Ah. Ah, <laughs> kuy remplacer Sonko. parce que parce que pour l' instant yi ñu ngi ñu ngi science ne voilà. déjà te Sonko nag ñàkkagul à 100 pour cent nag cassation ngi fi. mais dama ne sànq aji ñëwagul tamit de. Eh, eh, loolu beneen problème la tamit beneen dossier la. waaw beneen dossier la moo tax ma ne ah. euh, tamit le aussi ñu ngi ci yeneen yeneen kii tamit. waaw ah. moom ah. day lu lu lu euh, lu doy waar la xam naa ne bu ñu demee ba tollu foofu nag di xalaat ne ndax Pastef am na plan hmm. wala Sonko du bokk ba loolu tàmbalee doon lu nit mën a comprendre gëm ko. Hmm. loolu nag beneen affaire la. xam naa ne ñaari yëf yi moom. kon day tegtal ne état moom réussir na ko wala boog ñu ci parti au pouvoir. Hmm. Euh, nga xam ne ñoom lañ doon opposé wul. ndax euh, bu fekkente ne dialogue bi. waaw xam nga benn affaire dafa am. Hmm. ñàkk a ñàkk bokk Sonko ñu xeex ko ba bokkul firiwul ne lañ bëggoon am nañ ko. Hmm. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. maanaam waaw parce que ñàkk a bokk Sonko. même bu fekkee Sonko bokkul moom Sonko en tant que Sonko personnel hmm. Sonko dafay du dudul kenn nit du ñaari nit Sonko mbooloo la muy dem léegi. léegi xam nga li ma jaaxal ci say kàddu. dañu daan wax. Euh, loolu ñun ñëpp dégg nañ ko Sonko bu bokkul élection du am Sonko bu bokkul élection du am. Hmm. léegi diggante démb ak tey lu changé ba. léegi ñu ngi naan Sonko mën naa am. du bokk te ñu ngi jëm ci naan plan B la la ñuy utal Sonko. donc mais mais parce que àggaguñ ci élection yi. waaw waaw non dama xam nga doon dégg ci élection yi moo tax ma ne nañu yoonu yàgg. non mais Maodo bokk far force laa doon dégg. Mm-hmm. ak Sonko bu bokkul dëkk bi nangam sangam. waaw mais mais ba léegi ni ba léegi ni ñàkk a bokk Sonko nekkagul 100 pour cent. non non xam nga. mbirum <laughs> mbirum loolu moom ki koy wax. da koy wax bu dee bu dee ku wóolu justice moom mm. mën naa man naa wax li ngay wax hmm. bu dee ku wóolu jàpp ne man na ñoo dem tey cassation hmm. mu daal di yàq la ñu woon noonu la c'est ça mais la ñu déet mais Sonko Sonko ci boppam nee na wóoluwul justice loolu koo xamante ne moom membre Pastef nga vrai hmm. wala xalaatu Ousmane Sonko ak li ñu li ñu wone ci i kàddu ci ñàkk wóolu justice jàpp ma ne seen seen yaakaar danañ ko tegaat ci attekat euh, boo xam ne dana toogaat atte leen jox leen dëgg kan moo ñu wax nañu léegi waa Pastef nekkuñ ci stratégie bi lii ngeen di wax ni ëllëg ñu tax. bu doon loolu dañuy noppi bàyyi émission bi. mais duñ ko mais wax ne moo ñu wax nangam yow léegi kan moo la wax yow def loolu. la wax ni ngi def loolu xeex bi lii désobéissance voilà euh, civile dootuma wuyu justice justice bi baaxul kërëb-kërëb jàppal bàyyi def ay accusation accusation léegi justice boobee def ay dogal moo tax Mbacké di insister foofu nee la kii ne moom gëmul justice boobee est-ce que dina xaar ci justice boobee mu indil ko benn euh, verdict boo xam ne day dem en sa faveur mais même bu ko xaarul foofu du place Ousmane Sonko place avocat yi la liggéey liggéeyu waaw loolu kenn kenn xaalewu ko waale combat boobu ah. xam nga ñàkk bañ a wóolu def liggéeyam hmm. ñàkk bañ a wóor justice firiwul ne magistrat bu ñu duñ def seen liggéey yow yaa ngi xaar ne tey danañ dem cour de cassation ñoom ñu daal di dindi àtte bi kii woon wane ne loolu amut nangam nangam loolu mais probabilité naa ma ko yaakaar ma a la yaakaar naa ko néew ma la yaakaar dama ne la lu mën a ne probabilité lu mën a ne la xam nga Maodo yow fi nekk nii demoo dikkoo maanaam li nga wax nii da jóg ba ma ne Maodo day wax nga dellu si waat ci waxoon. non mais probabilité laa la wax probabilité mooy mën naa ne comme mën naa bañ a nekk man dama ne loolu comme àggagun ca ba avocat yi bind li ñuy bind ba yóbbu ko ca taabali cour de cassation su keroogee lu ñu décidé ma jàpp ne looloo yoon. Hmm. même bu fekkente ne ñii danañ ci ànd ñii bañ ci ànd. man loolu rek laa wax. xam naa nit de du ne damaa dem ba yàgg mu ne damaa ñàkk yaakaar ci dara. waaye bu fekkoon nit day ñàkk yaakaar ci dara day xalaat ne kon procès Pastef bii moom ak li hmm. ñu yaakaar ngi ciy bëgg jot. man daal yàkkamti laa gis waaye gannaaw gannaaw yëggagunu fan. non la ñuy wotee. léegi xaaral xaaral ma wax tuuti ci loolu li tax ma wax ko. Hmm. xam nga tey laataa projet bii di am. ñi ñu jàpp ci euh, waa Pastef yoo xamante ne wala bokk ñoo xam ne dañ leen di tudd di tudd Pastef ñu baree baree baree baree baree ñu ngi ci biir kaso bi ñu jàpp leen hmm. jàpp yow jàpp yu yaatu yu baree bari waaye lu mu ci mën di am rek bu ñu masaana dégg kuñ jàpp dañuy wax ne euh, maanaam day mel ne dara xewut ñu bàyyi mu jàll hmm. démb ñu doon xaar ne Euh, gis nga bu ñu daan woo Ousmane Sonko ñu baree baree bare bari ci dëkk bi sax du ñu xëy liggéeyi dëkk bi danaan selaw démb donte bari nañu liggéeyiwut mais am na itam ñu bari ñu génn ñoo xamante ne dem nañ liggéeyi melut nam daan mel ci tension bi ñu doon xaar tey jii ñu xëyaat ndakaaru fonctionné waat melaat ni mu war a mel te maanaam te àttekat yi joxe nañ seen verdict boobu ñu joxe ñu tegaat benn point boo xam ne mooy point dialogue national dialogue national bi Macky Sall mi ko waxoon wóowagut kenn ne la ñëwal ñu dialogue opposition bi ci boppam am problème bi seen biir ba ñoom ñoo war a dialogue ci seen biir fi mu ne nga xam ne tey non non non opposition bi am na ñoo ne duñ dem

yooyu waaw waa Pastef moom hmm. li Ousmane Sonko ne man bu ma gisee ci dialogue ba mooy kartam euh, Bob Marley lañ fa gis hmm. mooy kooku moom quel que soit le problème duñ dem hmm. kon léegi lan nañ nañ ko def ci beneen angle waaye dootul dootul problème dialogue parce que doo dem loolu dem kay kon nekkatul problème léegi nag euh, Mbacke dafa am léegi lu mu doon lu mu lu mu doon développé léegi mooy ne yooyu wuute nañ parce que bu njëkk bi Ousmane Sonko bi bi ñuy woow riir mi bëriwu fekk ko Dakar parce que tax demul waaw loolu am na waaw bu fekkoon te nekkoon na këram ñu naan dana génn ak du génn ñu koy bari kar dañu ma dox waaye moom bañ ne ko ba sax dani du ma dem hmm. kon ne du ma dem nag kon léegi di génn nekk ca Ziguinchor def conseil municipal kon kooku nekkatul woon Dakar nit ñi jërul ñuy ñu koy kii protection di ko aar ak yu demee noonu. Hmm. man noonu lecture boobu laa ci am. Hmm, d'accord jërëjëf comme newu fi te wowul kenn. jërëjëf Serigne Mbacké Sylla jërëjëf oustaz Maodo Faye. Jet Set, simplement wow! asalaamaaleykum mbokki Touba ak di ko wër EDK ginnaaw bi mu leen nuyoo ziar leen ndokkeel leen ci weeru koor gu tedd gi ñu génn ñaanal leen jàmm ak xéwal ñoo leen di xamal ni seen makkaan Jolof Chicken bi nekkoon si xayra toxal nañ ko si EDK bu njëkk bi nekk si diggante héliport ak Yanka EDK di leen di yëgal ni dinañ ko ubbi aljuma ji nu jëm yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril bii mbokk yi nawoon fa woon EDK moo leen yembal lépp lu ngeen itteewu si ay xéewal rawat na nag jolof ci kën bi nga xamante ni ku ko wax sa xel dem si EDK ay ginaar yu frais bàyyeekoo fii si mim réew waaye tamit yamuñu foofu de lépp luy fast food di ay xeetu baax baax doon ay xéewal yu mucc ayib si qualité ak rapidité fii si EDK akay bi benn la cadre ak environnement bu neex macha allah li ngeen xeme moon moo di EDK bii nekk si diggante héliport ak Yanka minutes yéen a ngi ci ndekki li émission nandite yi ñu ngi en direct sunu ay plateforme digitale YouTube Facebook Sud FM seen Radio la première radio d'information du Sénégal ma ànd ndokk sponsor yi nga xam ne ñoo ñooy gunge suba su ne euh, di ñu dooleel ñu dellu di leen santa ak di leen gërëm bokk na ci groupe Eureka mi nga xam ne saa sune dama leen wax ne euh, li nga li ñu moom euh, ñu koy dooleel dafay baax ndax réew mu ne ci àdduna bi El Hadj Demba Ka réew mu ne ci àdduna bi foofu nga toll maanaam di dooleel say doomu réew hmm. lépp loo xam ne dañ koy entreprendre comprendre euh, te groupe Erika gis nañ ne mu ngay màgg euh, di euh, jëm ci àdduna bi yëpp macha allah kon sant yàlla bu baax a baax gën leen a dooleel ci wàllu carburant Erika oil xam nañ ko ràññee nañ ko ci wàllu distribution low price ràññee nañu ko ci wàllu restauration Jollof Chicken ràññee nañ ko waaye itam ci wàllu transfert d'argent KPay ràññee nañu ko te lool dinaa ci ñëw fan yii di ñëw incha allah ndax KPay boobee dafa spécial trop ci wàllu jokkalante xaalis waaw envoi ak léegi moom grace à KPI euh, mi juddoo fii yaroo fii màggee fii ñu xam ko fii ci réew mi KPI moomee la ñuy utiliser parce que du ñu fay dara ci wàllu jokkalante xaalis te lépp daf ñu ko yombalal ba pare boole ci yeneen loolee dinaa ci gën a ñëw gën ko yaatal kon groupe Eureka gàcce ngalaama jërë ngeen jëf waane du Eureka kese ndax euh, li ngeen gis nii mooy euh, jet set maa ngi wax sànq ne yéen a ngay gis euh, célébrité yi commencé di leen ci communiquer lu bëri ku mel ni Abou Bilal Koutia ak ñeneen ak ñeneen daan ci ñëw ndax été bi yëpp boisson bi moo nar def buzz ndax boisson bi moo xew ci jamono di jet set jet set am na bu ne ci wàllu couleur am na bu ne ci wàllu goût ngeen mën ko taamu jet set mile moo xew ci jamono moo tax boisson jet set indi ananas indi orange indi fruit indi cola indi sax li sama maam bëgg lool kon nag jet set mi moo xew ci jamono euh, ku euh, boo demee ci boutique bi jamono ji jet set ngay laajte ndax euh, bu ñu defee maanaam loolee ñu naan jolof ci kën ba bëgg a diigal set bu sedd guy lanoo naan bu ko defee ñu digal na mu waree kon gàcce ngalaama boisson jet set mi xew ci jamono moom itam am na surprise yu ma leen ciy réservel naa ci ñëw AME di agence bi ñuy lëkkalee ci wàllu économie énergie ñoom itam gàcce ngalaama jaa ngeen jëfati à l'agence AME mi nga xam di ñëw am na communication bu am solo bu mu jagleel sénégalais énergie ñoom sommes en direct sur nos plateformes digitales YouTube Facebook et vous êtes nombreux à réagir actuellement euh, ci euh, vous pouvez le faire bien entendu Sud FM Sen Radio première radio d'info du Sénégal Serigne Mbacké euh, li li li li mooy gannaaw euh, euh, maire de Dakar Barthélemy Diaz ba mu annoncé euh, ne moom moo initié bi les dialogue dafa am lu mu tëjee ay kàddoom loo xam ne itam laaj na ñu bàyyi ci xel te loolu itam ñu bëri jaaxal na leen ci observateurs yi li mu tëjee ay kàddoom mooy Sénégal rawatina jeunes yi nañu bàyyi xel bu baax a baax politiciens yi xam ne dañ leen bëgg dugal ci ay guuta ah di leen bëgg def loo loo xam ne waruñu koo def ak yu ni mel lan nga lan nga jàpp foofu ci kàddoom yooyu. waaw wax ju wax ju am solo la moom xam naa buñ koy wax dañuy dellu si ca waxi eh, jànkati arab yi di wax waxi dëgg joo xamante ne nii mënees na cee dégg ab safaan. Hmm. c'est-à-dire ki ko wax. muy mi moom ci génn ndaw ñi ànd ak moom lañ ko xame hmm. maanaam ci woote maanaam tàng jër tey bu naan moytu leen ñu dugal leen ci nangam ah ak coppeeku rek la may xeeñ maanaam Bart moom démb bi ma ko gisee muy wax ki ma gis mu toog di wax moom hmm. euh, daa bokkut ak ka ma xamoon bu njëkk loolu rek laay eh, laa ko noonu laa ko jàngate hmm. bu dee cadre dialogue bi man dialogue dama cee d'accord maanaam fi mu ne ñu woote dialogue dem toog waxtaan yi hmm. damaa d'accord ci ne dialogue daa war di am saa su nekk te daa war di bari lu muy am jàpp naa ne sax euh, Ousmane Sonko mii sax euh, ngir euh, lay dem cassation yi ci aju yëpp. Hmm. dem dialogue gi ci boppam daa bokk ci yi nga xam ne amal na ko ah. importance. jàpp nga ne moom li ko concerné yëpp. waaw mën na bokk ci dialogue na bokk ci dialogue bi sax moom moom sax xam naa peut-être ni politique bindoo ak moom aéro politique bi mu ñu jox. Hmm. mooy nit ku fonk kàddoom doo wax dara di ca dellu te nee na bu ñu ko fa gisee bopp marre lañ fa gis yaakaar naa bopp moom hmm. xanaa mu mu jéem a abbi rasta waaye kon mën bopp moom du fa <laughs> moom ngir mu <laughs> dem loolu mooy du ma fa ñëw rek. waaw loolu laa bëgg a wax man tam. <laughs> saas loolu la a a ah, <laughs> dagg kii bàkk ci élan ma. <laughs> moo ma gën a xam maa a ruube rek waaye man waajal naa la. léegi nag xam nga bu loolu amee dialogue baax la parce que tey boo li ma doon wax léegi Maodo ne ko jafe-jafe bi am seen biir yëpp mën ngaa wax ne ci dialogue bi nga koy gisee. Mhm. moom li muy bañ ne du jafe-jafe bu nekkul jafe-jafe ñàkk déggoo gi am démb ak tey. Mhm. ndax buñ gisee ne Khalifa Sall dafa war dem dialogue parce que Barthélemy laay wax ci ay kàddoom mhm. moo wax ni mënoo wax ne euh, maanaam euh, maanaam ku dee sa yaay juraat euh, nañ def nangam ba ba jot ci maanaam da da ngay bokk wala nangam ba pare bañ ku dem dialogue gi. Hmm. jàpp ne yow da ngay wax loolu doo ameel askan wi àq ba noppi jàpp ne bu ñu amnistie nit ki ñu dañoo ameel kooku àq jooju wax. Hmm. diggante la wax joo xamante ne. ñaar ñu di ma tontu wala da toog ngir di ma bàyyi ma wax sama xalaat ba pare non non dama lay laaj yow man nga man nga léegi du ma man du ma wax déet waxuma la doo wax de. su may wax doo ma may ma daaneel. waaw li nga wax kenn du ci am xel xalaat. <laughs> mais da ngay bàyyi ba pare nga joxe ko. mais ma tàmbali nga ne ma tontu mu wax na ko pare. non non man dialogue bi naan yi naan ba ba. dèjà maa ngi doon daaneel sax mais xam nga daaneel nga ne ma fif man tam bu may bu ñuy fifante noonu du neex. waaw daaneel la léegi foofu. non ni ko daanu na <laughs> daal na oh, nga ko jógaat. yàlla léegi non ma xalaat loo waay daaneel nga euh, gannaaw Mbacke daaneel na foofu ñu daal di. Euh, enchaîner maanaam daanu naa. waaw da jeex na nu mu ko waxee rek waaw nu mu ko waxee rek léegi. li ma ko laaj mooy euh, Barthélemy maire de Dakar démb ci ba muy daaneel ay kàddoom dafa ne na ndaw ñi bàyyi xel te moytu politiciens yu bees yi nga xam ne dañ leen bëgg a dugal ci ay guut ak yu ni mel loo ko loo ko jàngate waa xam nga wax jooju moom daanaka euh, Mbacke wax na ko léegi mooy wax la joo xam ji daanaka Barthélemy waru ko woon wax ndax moom yàgg naa mobiliser ay nit topp ca gannaaw ay nangam yeneen ak yeneen ay nit too bootu topp ci gannaawam hmm. te moom nitu fuul la hmm. waaw moom ci boppam nitu fuul la hmm. tey tamit nit koo xam ne kii ñaari ay kàddoom la ci faral di menacer bu nangam amee da ngeen xam ñun fii noo moom nangam la ñuy nangam te loola bu ko daan def mbooloo lay àndal tey tamit ñi àndoon ak moom tamit jàpp naa ne duñ ay dof ndax itam boo xoolee mbiru Njaga Juuf Euh, d' accord dañ ko fekk si woon xëy na ci maire bi attaqué ko mu défendre ak yi demee noonu mais mbooloo àndoon naag moom te dafa dafa génne woon gon moom nit la woon koo xam nit la koo xam ne kii Bart du delloo du delloo avance moom ci côté boobu rek. Bart du delloo avance. déedéet moom loo ko jox mu delloo la ko. dégg loolu te tamit buy dem day dem sans réflexion moom gis nga fii keroog rek ci affaire papier yi amoon fii maire bi xam fu ñu doon defar affaire élection yi demee noonu police dafa ñëw attaqué ne day dugg ci biir hmm. moom moom nit la koo xam ne kii day dem parce que loolu Barth wax noonu hmm. naan waaw bu leen topp politiciens yi nga xam nangam loolu waa APR dañ koy wax hmm. ñeneen ak ñeneen dañ koy wax PDS bi ñu fi nekkee dañ ko doon wax mais moom dafa taxaw dafa taxaw politiciens yooyu muy wax taxaw dend ak moom ne Bart mii dañoo bëgg a nangu ci moom maire de Dakar mais ku nar a jël ci moom maire de Dakar dañ la génnee ci palais bi te jamono jooju wax jooju da koo neexoon parce que position bi mu taxawee woon neex na ko nañ bàyyi bu bu donné yi sensé wala position yi sensé nga bëgg a soppeeku nekk malaaka di joxe ay leçon morale te bëri ki démb bu la arrangé da ngay taxaw lu mu gën a tàng moo la gënal moo tax nag ma bëggoon laaj est est-ce euh, dinañ xam ne politique dafa am nu muy doxee quoi c'est-à-dire euh, lii ñuy faral di wax il ne faut jamais dire jamais en politique. Ah. politique tamit euh, da nga koy maîtriser. waaw maanaam euh, nga xam ne aussi politique amul lu juste loo xam ne lii da nga naan mais pourquoi est-ce que waa ji jóge li ma ci bëgg a wax. loolu yi nag laa jàpp ne moom la Ousmane Sonko mënut. Hmm. maanaam moom dafa nekkut politicien maanaam li ñu naan nii politique nii la ko jigoon te jigoon ko xam naa bis yi da du dellu si waat ba ginnaaw mais kon da du lëngoo ñii mu lëngool maanaam lëngoog lëngoog ñii mu lëngool ñii yëpp lu indi coow wala mu wala mu ko ci jafe-jafe bii am ci coow lii hmm. looloo ko indil waxuma nag kii dugg te làmmiñu boppam dugal ko ci hmm. wala fuñ ne dafaa dem te waru fa woon a dem loolu moom mbirum boppam la moom ak ñam ko séqal hmm. waaye lëngoo gii ci wàllu politique lëngoo koo xam ne li mu lay wax bu doonee essentiel dinaan la maa ko waxoon mais politique lii c'est-à-dire lii di neexee dem ni mu mel fii noonu la mel ci àdduna bi yëpp ah politique reste politique donc waaw waaw euh, mais xam nga xam nga tamit mais am na am na particularité sénégalaise quand hmm. waaw am. particularité waaw parce que foofu particularité sénégalaise mooy. Hmm. wax la loo xam ni da wër ne gëwuma ko. Hmm. li ma gëmit tamit du ma la ko wax loolu am na ci politique sénégalaise. ah loolu ah, ci politicien ci àdduna bi. Euh, ba noppi itam euh, naxaate bi. ak soppeeku bi comme des caméléons. parce que gis nga fii li fi am ci wàllu euh, transhumance. man Sénégal dong laa ko gisee ci wàllu politique. transhumance bi ni muy demee ni tey xoolal ñi nga xam ne tey ñoo nekkoon ci PDS bi fi Ablaye Wade gouvernement bi fi ne li ci des tuuti lay doon. Mhm. donc ce qui fait que day mel ne ña fi nekkoon di nag ñoo ñaari ragante ginnaaw fi mu léegi nag bu yàggee société bi ci boppam la ñuy par des politiciens yi xam ne matuñu 1 Sénégal. Mhm. su ko ñun nag askan wi bopp nag ñoo war a taxawaat. stas nga baal ma mhm. ëllëg Macky bu taxawee ak Karim Wade bu mu ñu bett. ah c'est clair. ëllëg Macky Sall boo taxaw naa ak Khalifa Sall ba pare mais même ëllëg Macky Sall bu taxawee ak Ousmane Sonko. ci yeneen i business du bu mu la bett. xam nga politique politique reste politique. mais dafa am ñoo xam ne xam nga ñi ko def profession. ñoom ñoo reste politique. Hmm. am na ñoo xam ne ñoom defe nañ ne buñ politiqueul nekkuñ ci pouvoir duñ dund. Hmm. am na ñoo xam ne psychologiquement. ñoom sans la politique. wala ñu am ay fonctions étatiques duñ dund. politique dafa am yoon ce qui fait que léegi ñooñu. ñooñu ñooy doxalee noonu non non politique bii may def façon beneen façon. politique la bëgg a ci kii. ba pare àndaat ak def loolu ci seen biir ba pare bëgg ànd ak voilà ñooñu. ba léegi ba léegi loolu de mais dama ne politique lu mu takk lu mu xajam xajam xajam am na politique bu set. lu mu xajam xajam xajam am na bu set. <laughs> loolu waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne ci politique képp dañ ko def profession. Hmm. ñooñu ñoo yore couleur caméléon yooyu d'accord kon loolu nañ ko nañ ko jàpp noonu noonee la ko oustaz Maodo Faye waxee li ma bëgg ñu tëjee rek à 11h51 minutes laata ñoo dem ndax boobee jamono Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko la ko dal ca tribunal ak Mame Mbaye ak yu ni mel euh, ñu koy coow boobee jamono euh, président Macky Sall analyste yu bëri ne ak ak ak mbong ak mun politique ndax boobee jamono moom mu ngay recevoir euh, mbër yi ci Sénégal ñoom Balla Gaye et compagnie dem foofee ca palais mu teral leen maanaam léegi mbër yi félicité bu baax a baax a baax président Macky Sall ba dégg dégg naa ñu ci bëri naa ñu ngi doon laaj euh, Matar Ba nga xam ne ñu jotoon na ñëw ci émission bi la di pour ñu defaat ko ministre des sports ndax euh, euh, sportif yi Matar Ba la ràññee oustaz noo jàngatee loolu mbër yi demoon démb ca Palais waaw xam nga li ma ko njëkk a jàngate mooy mbër yi ay citoyen lañ mhm. waaw quelle que soit profession bu ñu mën a def moo xam jàngalekat yi moo xam tailleur yi moo xam jaaykatu matt yi moo xam journaliste yi mhm. ay citoyen lañ su fekkente ne dafa am loo xam ne lii dañ koy am nañ sañ-sañu dem euh, toog ak njiitu réew mi parce que dañuy rek carte d'identité dañuy voté et cetera. Mm-hmm. léegi nag départ problème bi mooy contenu bi. lu leen fa yóbbuwoon ak lu leen fa doon wax. Mm. loolooy coow li waaye am nañ droit dem gis chef de l'état waxtaan ak ñoom jox ko seeni i doléance lam ca mën a régler mu régler ko lam leen ca mën a dig mu dig leen ko. Mm. ñoom tam bu ñu génnee am nañ ginnaaw ñu waxtaan ak seen bokk. Mm. am na solo euh, Mbacke noo jàngatee. waaw loolu de euh, dafa mel ne ci liggéeyu président la bokk. maanaam dalal association yi. ak ak ak kuréel yi. Euh, loolu moom du guléet. ci mu koy def ab Ablaye Wade sax ci ayam gu mujj ci fan yu mujj yee dalaloon na mbër yi. ba joxoon leen fi 50 millions président defe naa jox na leen 100 millions. ala kulli xaal loolu moom euh, euh, maanaam ñaaray am. mooy gis ne euh, ban message lañ fa jàllale message boobu ndax amal na njariñ askan wi hmm. waaye bu dul loolu moom man mii de bu ma président dalaloon ma jël c'est-à-dire maanaam képp ku ne ci réew te nekkub citoyen animateur yi waaw yooyu fi ne duma ko yëg da ngay jékki rek da ngay jékki-jékki seen ma maak ñoom abaa ñoom kii ñu nekk paraba waaw yéen moom mën bu ko defee léegi nag dem maanaam président ne ci njiitum réew njiitum réew moom maanaam pale lañ yàqub deram ba bu fa nit jox na ko xaalis say mbokk ne ñaat lañ la jox bu la joxee tuuti nga ne dem koo ñëpp la fi nekkal mais xamante ne man de bari na ñoo xamante ne nit dana dugg pale ñu koy saaga euh. boo fa mënoon a dugg da fay dugg boo amoon ko fa mën a dugg nga dugg fa man bu ma président woo woon suba ma dem wujju ko damaa xamul fu may jaarit ba mu woo ma waaye kon ma dem wujju ko yàlla baax na naa la boole ci suñu audience ba ñu am ñun animateur ma ànd ak rapport waaw ba président bi ma oustaz oustaz looy def fii <laughs> oustaz maa ngi sant bu baax maa ngi lay sant bu ba suba ak jàmm jërëjëf Serigne Mbacke jërëjëf jërëjëf merci à l'équipe digitale merci à l'équipe technique merci à vous vous étiez comme d'habitude très nombreux à nous suivre sur les plateformes digitales may baral a baax suma kilifa Serigne Sam Bousso mu ngi leen di ziar di ko sant ak di ko gërëm bu baax a baax a baax sëñ fi sëñ bi yàgg fi te wér Serigne Sam Bousso maa ngi lay delloo njukkal di la ziar Bousso di am mbégte bu baax a baax a baax ci sa taxawaay jërëjëf na yàlla na sa taxawaay yàgg Serigne Sam Bousso kon jaajëf merci à vous de nous avoir suivis toujours un plaisir pour moi de vous servir n'oubliez jamais visez la lune salut à tous à demain Boisson Jet Set EDK ak AME ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi ndekki li émission nandite yi